alright euh, jërëjëf welcome back to euh, Star TV euh, tey nag comme ni ñu ko rek dinañ leen di am exclusive interview with our Gambian players ndi réewuñ mbir ne since after AFCON qualification foofu si biir Afrique mu ñu na engage some of these heroes ñu nga xam ne rek ne. Euh, def nañ jaloore euh, for the first time Gambia qualifies to the history of Africa Cup of Nations since 1953 Gambia they only play football euh, ñu gis na Gambia qualified through this ma uh, young lads uh, talented players uh, ñu mel ni Ibrahima Koli Iboy ñëpp xam ko mu nekkoon fii si biir lii déema réew mi di play ak ñi di Hawks Football Club ba balaa moo dem foofu si biir lii déema Atlanta Euh, tey nag moom la ñuy waxtaanee exclusive interview euh, jaar jaar yi euh, kii di Ibooy ba tey dinañ waxtaan ak moom tamit rek ne history of testing the Africa Cup of Nations for the first time dinañ waxtaan ak moom tamit si biir di Afrique Coast di gis nañ rek win nañ ñi di South Sudan by three goals to two mu nekkoon ku nga xam ne sax ne mu doon drive bi di game bi wala mu am ndax te njëriñ mu génn si match boobu. Euh, Iboy euh, ñu dalal la si Star TV euh, ñëw seet na sa fii sa dëkkuwaay fii sa biir di kër fii di Brufut pour waxtaan ak yow rek exclusive about football. Mhm. especially rek you know that historic moment bu ngeen def qualify loolu di Gambia for the first time si East African Confederation bi ñu bàyyi la nga nuyu ñu nga xam ne rek ñoo la seetaan on Star TV fii si réewi Gambia. asalaamaaleykum man la Ibrahima Colley seen doomi réew mi. maa ngi leen nuyu ki nga xamante ne mi si mi si réew di seetaan Amstar TV suñu. voilà ah, thank you very much ah, Koulibaly rek dina am lu nga xam ne dinañ bëgg a xam sa jaar-jaar ah, fan la Ibrahima Koulibaly jaar si wàllum li di football fan nga màggee you know fan nga juddoo. Euh, tey rek ñu mun naa jékki-jékki rek gis Iboy rek xamul Iboy fan la jógee ko you know euh, ab xale yu nga xam ne ñu ngi laa roy euh, duñ mun a xam obstacle yu nga xam ne fu nga jaar ba m fii because bi ni step by step la ndax rek nga ñu quick rek kan mooy Iboy ak fan la Iboy jógee ak naka la Iboy def ba door football ba eggal si level bi tey moom fu ma dooree dama juddoo Talinding la juddoo Um, foofu laa magee foofu laa defe everything li nga xamante ne ak suma xarit yi li nga xamante ne mooy lii football then from foofu noonu um, ñu amoon team bu ñu ooyee um, Blackpool waaye balaa Blackpool leen amoon youth team bu fa nekkoon bu ñu ooyee pool bi so ma suma xarit yi suma morom yi daal ñu nekkoon foofu noonu ma dem Blackpool mu nekk team yi nawetaan bi from foofu noonu si la amoon benn access bi nii mooy uh, lii dem pour aspire so si aspaya bi affaire si euh, demoon ba Sénégal affaire si demul trop dem bu ma dellu si si la ma fekk xox ñu fa woon si affaire yi si aspaya bi so bu ma dellu si si la ma gars euh, indi foofu noonu pour ma ñëw join ko waaw dem waaw ok euh, time boobu Diba moo doon um, doxal affaire aspaya bi waaye mu doon jaar si affaire sang tamit so um, bu ma jógee aspaya bi affaire si dama doon trop ma ñëwoon pour um, delluwaati pour dem affaire school yi so si la Diba ñëwaat mu ne ma ne kaay train Hawks so mu ne ma ñu ngi am benn team bu ñu ooyee Hawks waaye temps boobu noonu du ma dee follow um, affaire ligue bi tamit xaw ma woon ligue bi affaire waaw maa ngi si nawetaan ak play koñ yi nga so after si la ma gars yi woon ne kay den nga ñëw nga um, train ak after mu ne ko ok baax na dinaa ñëw dinaa ñëw so affaire si daal noonu la ñëwee opportunity bi noonu la from you um, football Eh, to aspire aspire to Hawks Football Club naka la meloon that transition that short transition naka la ak yow ak lan nga si jàngi ak lan nga si gisee because comme noo ko rek yaa ngi woon si nawetaan ak warga warga koñ you den ñu ne la kaay ñu Hawks naka la ak yow ah, am na ñoo xam ne wërsëg yi dundee nekk benn because um, man si play ak suma xarit yi play na ak gaay lu bëri waaye in time of comme um, bu ma bu ma demee Hawks things was so fast ba nga xamante ne nii soo bàyyi xel ñu boole leen def ne musuma play si ligue Gambie waaye jot naa play benn season tamit so affaire si comme nu ma ko lay waxee nit ñi seen wërsëg du benn ku nekk dafa am wërsëg am ku nekk dafa am time am waaye with patience ak hard work ak li nga xamante ne nii loolu nga bëgg a def mooy dee mun a aagal loo fi nga fi bëgg a aagal so it's totally different like street football nga nekk di play ak sa xarit yi dem from there nga jump to tries tries nga dem fi nga xamante ne nii ñooñu ñoo la oyal sa mbokk pour nga ñoo join nga mm-hmm. yaa understand so moom ma demee Hawks it was so fast also nekkoon naa si yu team bi balaa ma doon move si team mag bi ma move si team by then fekk dem naa Italie ba pare so things more things waaw dem naa Atalanta man dama bala ma play Hawks team mag fekka move naa tryouts to Atalanta so bu ma play na ah, léegi Gambia fekka man génn naa Gambia bi ñëwaatee biir Gambia so it was something li nga xamante ne it was so fast bi nga xamante nii comme man sax <laughs> mun ma understand mun ma a understand la so bu ma demee Italie ñëwaat si la play léegi Gambia den ma soog a delluwaat Italie. bien naka la life mel noonu yow uh, in Hawks you know um, because Hawks ñu ko dañ di dégg Hawks Hawks waaye mënuñoo xam you know how Hawks naka la nekk di demee uh, comme noo ko waxee rek naka la mel nag yow in Hawks football club. waaw man moom um, comme comme ni ma ko lay waxee rek. Um, man dama dee dama dee like pour jàngee si nit um, ñi spécial ñi nga xamante ne ni ñoo um, ma mag ak ñi nga xamante ne ñoo ma si game bi so bu ma demee Hawks moom fa fekkoon ñi nga xamante ne ni musuma foog ne dinaa fa fekk gars yi e dama lay dégg seen touré si biti players yi mag ñoom Dixa ñoom ñoom moo leef xam nga ñoom Moussa Bangoura ñoom Moussa Baro ñoom yëpp foofu laa leen fekk I ah, understand so affaire yi dafa doon dem nanka nanka la doon demee um, waaye comme ñëpp de ma indi seen ron daal pour wan ma ne comme fii mun ngaa play comme soo believe sa bopp di nga mun a wane sa talent ak yooyu noonu so everything was also easy si man tam suma bool because um, man doon déglu gars ak li nga xamante ne nii seen advice loolu la ma gars yi di ko um, foofu let's talk about um, your Um, because they gis nañ Gambia right now recently um, parents even give a football because luñ nekk di gis la football am expose you know uh, Gambia qualify to the ñu gis doomi Gambia di play in European football ak xaalis bu ñoo oote tey uh, naka la meloon ak yow with your parents um, pour rek na you ñu war laa bàyyi nga play football uh, those days nag mairie li ñu doon gën a préféré mooy nga dem jàngi school wala dem daara wala def yeneen naka la meloon ak yow with fan waaw ah, man moom ah, foog naa ko war a ah, jógee talent ni na <laughs> di nga xam suma daal lu ma def because of comme si affaire football man moom dama diggaroon ba fa daal comme he was concentrating more of the school jàng bi ak daara bi so man moom su neexee rek football bi su amee ma laaxu rek ma dem play waaw tawee luske yoon saa mu fekk ma si biir fii bi sax mu rite ma génne ma si biir fii bi jëbu ma si biti xam nga so waaye loolu yooyu it was um, all experience because um, da ne moom tamit all that um, lu baax la ma bugaloon lu baax ma bugaloon moo nekk pour ma jànga english bi ak luy um, lii mooy luy diine bi ak yooyu noonu. so waaw moom dafa bëggoon waaw moom dafa comme more of school jàng xam lu nekk si biti ak yooyu noonu den because man doon def school ak daara so su ma jógee school ma dem daara su ma doojee daara rek ñëw fekk ma foofu noonu. yeah so dem play so yéen si am fekk ma si biir fil bi ma ma jéem ma dem. so waaye moom he was léegi laa doog a xam lu tax mu ma guide si place boobu noonu pour ma mun a um, concentrate moo si affaire diine bi. well um, how was life because experience life in Hawks uh, naka la life mel yow sa first time jot in Europe um, pour war a nekk professional footballer uh, xam nañ transition bu wéti la because tey gis nañ player yu bëri ñu nga xam ne dinañ dem Europe. waaye di invité ñu ngi wax ni jëloon bàq di Gambia. Ah. Euh, lan nga mun a wax daal pour xale yi nga xam ne tamit rek jàngi tout yéen euh, pour war a mun a nekk professionnel naka la yow di first time nga jógee ko Hawks dem it Atlanta nekk ay youth player foofu noonu. waaw nga comme euh, affaire process la dee nekk dangay understand te process bi danga ko war danga ko war a um, yow mi sa boppa because keneen mënul la ko defal um, si biti understand so process bi moo nekk like yow da nga believe yow na yow boo am yow da nga war a target sa bopp ne man lii laa bëgg a def in two years time fii laa bëgg a nga so it wasn't easy bi nga xamante ne nii like um, dooram bi biir Atalanta things were so um, difficult waaw uh, so waaye da nga ne um, comme ñoom tamit believe bu amoon comme ne kii dina nekk talent uh, dina mun a indi dara si bi ak yooyu noonu so with process boobu noonu loolu la gars yi keep foofu noonu um, di ñu jàngal di ñu di ñu woon lu mu war a def di dem school ak yooyu noonu at the end comme man maa bëggoon a man maa understand because dama woon a toog four years du ma play football so training kese laa war a def so after si laa wax gars suma age so for four years pour ma war mun a play waaw ñoom seen age bi because um, because age hmm. da war a àgga 18 pour nga war a mun a am process boobu noonu pour mun a bokk si youth team bi ak yooyu so things was so difficult ba nga xamante ne ni after waaye the easiest thing moo nekkoon like comme may amoon suma benn um, suma yaay sister bi foofu noonu so moom with documents am ak yooyu noonu man munoon mun a teel play so waaye after moom moom ma explain ne like non suma jëkkër du nangu suma yi so ma wax like um, fooguloo nga xaar four years mu ne ma kii waaw toog Italie four years ma ko non ma mënu ma toog four years so loolu moo waraloon ma ma war a bàyyi ma ñëw playaati si ligue Gambia fu two years so mu desee uh, one and half years pour ma si laa dellu Atalanta Um, process bi woo uh, soogul comme na ko waxee rek I think this is very important pour xale yi di si jàngee because tey dañoo gis nduy dañoo dem rek uh, wane nañu play by force waaye gis nañ comme na ko waxee uh, nañ xool Ibrahima Colley um, at the age of 19 in 2017 gis rek sa first professional debut of the senior team two goals to one um, loss against Bologna on the 15th of 2019 naka la mel nag your first game under 19 2017 waaw it was it was nice xam nga ñëpp loo leen leen ñaan soo jogee fi pour dem nga dem si youth team nga jógee si youth team yaa ngi expect pour dem si team bu mag so soo dee expect team bu mag den chance bi mu ñëw xam nga danga ko dee danga dee try pour capitalize nga jël chance boobu noonu waaw gis ne Moussa foofu la dooree man foofu laa ko fekka waaw ñoo àndandoo ñoo defandoo everything youth team den mu dem si team bu mag yow ma si laa doog man si play si youth team bi then one year man ma fekk ko waati si bu mag bi after one year so da nga gis ne ko um, bi uh, mu ngi amoon belief bo nga xamante ne nii uh, foog na ne man mun naa am chance boobu noonu pour war a mun a play si um, bu mag bi waaye balaa boobu noonu tamit da nga gis ne um, fekk uh, Sampdoria ñu ma bëggoon Sampdoria ñu ma bëggoon a sign so si last day transfer bi after everything mu through si guddi bi si la ma woon ne léegi da join team mag bi so noonu laa joine woon team bu mag bi te si laa def suma début. good um, then also ñu xool uh, on the 23 september 23 um, september uh, move uh, to Verona lan la loolu war génn Atlanta dem to Verona. waaw playing time um, playing time moo from Atalanta ma dem Verona because. nga toog di train léeg-léeg yaa ngi soo play five minutes la moo nekk si benn one month wala nga train full one month doo play benn game so si training rek nga nekk so man I was thinking it doesn't tell well comme as a young player comme nga war a although things were going well my my my <laughs> because my play one of the best players comme si si league boobu ma nga mooy mooy Italie comme players yu mag ñoo xam ne yaa ngi si TV yaa ngi traîner so man in other side ne si si benn boor mënoon naa jàpp ne ah ba ma toog fii ma lekk suma xaalis and then ma enjoy at the end ma dem ay Champions League ma it was gonna be okay for me after ma bu offer bi ñëwee rek um, ma ne ok ba ma jël offer bi ma dem ma dem play moo gën. waaw first season bi was ok okay um, honest bu ma demee play na ay uh, more than 23 games si uh, suma first season si um, Serie A so everything was okay so after si la injury ñëw ma duga si ma daan play waaye it was end of the season nekk moo ni play waaye in Verona foofu laa jàng li nga xamante ne um, mooy sacrifice mooy hard work mooy everything because then da nga gis ne team bo team yooyu noonu mm. ak Atalanta is totally different I understand lu Atalanta am yeneen team yi so which means ne fële yaa ngi try pour save from relegation fii yaa try pour save pour dem Champions League wala wala nga dem Europa League so things were so balanced da nga xamante ne ni um, liggéey li nga xamante ne ni hard work moo la mun a jox so player tamit nekku ne comme dañoo wane a ah, si you team la jógee añ ko player comme Atalanta mun nañoo balance things waaye Verona duñ bala ñii duñ la xaar because dem waa as a big player dañoo wane ah dañ ko seen ba pare rek moom pare na war naa mun a jël anything li nga xamante ne nii moo ñëw si kanama so ñun tamit comme da nga gis ne yoon players yi loolu mooy nekk seen um, problème comme da nga move nga explain da nga play at the end soo demee doo play so which means ne comme foog nga pare bala nga move soo pare wootee doo doo mun a play because yow Atalanta lu moo xaar si yow beneen team bi du ko xam ñu ne du ko fa because dañ jënd pour nga make difference so loolu mooy di wala difference waaye comme first season bi was ok euh, euh, ko gis transaction bi euh, waaw um, bu ma bu ma demee um, ma demee ma jógee Verona. Mm-hmm. it was successful. Mm-hmm. Um, Simon suma boor ma um, delluwaati pre-season ak Atalanta um, things was going well teams yi man do ay offer different places booloñ na fu nekk um, du woon du woon Spezia kese so man ma man ma defoon move suma bopp du suma du suma agent du kenn so man ma jëloon that idea pour move because bu ma waxee ak coach bi mu ne ma dama bëgg nga dem loon so ñu play benn beneen week ñu am test game ma did well so si la dem si gars mu ne non bëgguma mu dem dama bëgg mu stay so da nga gis comme gis nga things nu mu dee demee so moom mu ngi bëggoon ma dem loon at the ma play things change ma toogaat ma toogaat beneen two weeks so nga ma loon maa ngi xool things nu mu nekkay demee comme maa ngi xalaat man play na 23 games last season ma war a ñëwaat xam nga nekk si bench um, di dugal ay five minutes ay ten minutes si la la decide ma non man it's better ma jéem a waati ma dem ma dem play ma dem jël soo so loon bi mu ñëwee mu ne ma bul dem ma ne ko man dama bëgg a dem ma ne ko soo bëggee ma toog dama bëgg nga wax ma comme sa plan si man so si la ma wax ah, soo fi toogee di nga play di nga play su fekkee yaa ngi def li nga nekk di def waaye promise su ma la ne eh, da ngaa play game si eh, yëpp so after man mu eh, ma demee ma toog ma xalaat ne mu ne dinaa play waaye promise ma ne dinaa play game si so te man suma idea mooy def naa 23 games dama bëggoon a def 33 games 38 games because man loolu moo nekkoon suma target wa waaw because def naa 23 dama bëgg a def 33 pour play all season play games si yëpp so waaye da ngaa gis ne comme nit yi ñun dañ dee choose rek waaye doo dee xam luy ñëw si gannaaw ak lu yàlla di decide so bu ma jëlee décision boobu mu ne ma ok mun ngaa dem waaye loon rek ngay dem so ma dem spécial doorin bi ma doon play 90 minutes 90 minutes first three games yëpp then injury mu ñëw pum so so suma season um, biir um, biir was so difficult ba nga xamante ne nii like um, things was like every problem si man la jógee because man maa décidé pour dem waaye after man dana nga ne foog ma jël faith boobu noonu ne pour décidé ne yàlla moo lay décidé lu nekk moo lay moo lay lu moo yeah ma demee special things was so difficult because I couldn't imagine lu doon dem si man so because dama dama laan jógee injury open ma jógee injury three months balaa ma xam lu yow pum another injury so waaw comme am na am na foo leen toll comme da ngaa try pour give up yeneen sa sa mind bi jox ne waa man ñëw naa ba àgga fii la moo tax moo war a moo war a give up comme so loolu moo lay nekk di ole difference because so xalaatee yow foo foo jógee ak sa famille ak yooyu noonu yëpp xam nga yaa ngi try pour satisfy every person bi nekk sa boor so man foog naa da nga war a jël another step pour mun a dem through those difficulties nga mun a nga a jéem si loolu noonu so lu ma dal Spade si moom bëgguma mu dal kenn si bëgguma mu dal beneen player um, tojin foofu is a very tojin story um, ñu ñëw nag uh, si international career uh, then because uh, after loolu lañ gis nga def another move of August 2022 to Turkey loolu dinañ si ñëw let's talk about the national team um, you being a younger player um, ñu gis la nga ñëw uh, def sa first debut bi very big nation Algeria uh, mun nañoo waree sax boobu nekkoon na match bu nga xam ne almost tuuti mu ñaax appelé because uh, population was too much dañ dem bi wàcce si biir ground bi ba naari bañ a si boppam waaye we still with the intervention of some official ñu play ko ñu gis nga def sa bu for the first time nga wear di Gambian jersey ba pare nga nekk a substitute of another legend player Ibrahima Sona how do you Euh, bu ñu la doon oo euh, nga ñëw place yi euh, against Algeria nga war a suppléter Sona in the 81st minute stade what do you feel on that day Ibrahima. Oh, a um, uh, young boy bi nga xamante ne ni young talent bi nga xamante ne ni he was struggling for all his life to um, put them um, through those things pour mun a wear jersey that's it deka bi nga xamante ne nii everyone means sa Ghana sa family sa xarit everyone means sa Ghana loolu was a was a yeah because um, man doon play comme Europe where I was I um, expecting um, those that kind of crowd because man bu ma play si national team bi fekk maa ngi si youth team Atalanta so. Atalanta left Albury, it, was, it wasn't like that. It was another kind of thing. It was totally different, like um, Bumaneka Atalanta. Well, um, Langa Jangi Fufu on day, yeah, uh, you know, so the first day, Gambian Jazzy substitute Ibrahim Asona, you know, a very important game for Gambia, played Algeria, drop off 1 at the Independence Stadium. Um, Bordelo Atlanta. Um, lan waaw because nga ñu bëri um, ñu moom si national team bi dañ doon wane um, xale la um, la moo bi waaw ko oo xam nga ñu ngi bàyyi yeneen professionnel si biti yeah under Tom moom moom invite on so nit yi wax yi dafa bëri woon daal so and the thing lu lu ma doon xaar mooy comme chance bi so man suma équipe bi daf ma lay wane kom football amul xale so chance bi su ñëwee rek am try nga jël chance boobu noonu so man that was the only chance ma doon expect um, te um, bu mu tamit um, dama ko jëloon sérieux because da nga gis ne am den big players yi ñi nga xamante ne nii Ah, man leen fekkoon foofu noonu den den open seen bopp si man di ma advice ñoom futi ñoom soxna ñoom soxna moom daf ma lay ooyee dama fa ne man sa sa maam la xam nga ak yooyu noonu ñoom Omar ku nekk muy open boppam eh, ñoom Assane big players yi ñëpp de de mi den den seen boppa pour ma mun a fit si team bi mm-hmm. so likewise man tamit comme man dama dee jàngee si loolu so moo tax every young player bi nga xamante ne invite nañ ko so I try to do the same thing ba nga mën a fit si waa ba nga waa I try to do the same pour nga mën a fit si bi pour nga mën a bokk ba nga a satisfy sa bopp si li nga xamante ne nii mooy national team bi because process ah, ah, process la dee nekk because um, soo ñëwee nga fekk fa nit da nga war a toppa through those things those people nga seet naka la ga yi nekk di dundee pour yow nga mën a dunda waaye man dama lay mën a dama lay appreciate comme ñoom comme mag yu fa nekkoon lu ma koy nga xamante ne ni man tamit di seen team seen team laay defal ñoom bambalaay ñu lay ñëw even um, Ndoobu gaay invite from fi national team bi so I try to um, have um, conversation ak gaay nga xamante ne ni damaa dem little bit deep gaay seen kaw di sonal dam nga di di duga conversation mu nekka maa gaay suñu diggante den da nga gis ne nit ki da nga koo da nga koo wax nga advice ko li nga xamante ne nii daf koo njëriñ rek waaw doo ko advice li nga xamante ne daf koo delloo gannaaw wala leneen so man man loolu laa lay try pour def. Uh, let's talk about uh, mooy um, qualifying with naka la jonne bi meloon ak uh, naka ngeen def achieve you know lu uh, nga xam ne Gambia has been yearning for for almost years back. uh, Munio qualified. Uh, we have great players like Ibusila, Jato Sise, Batembo. You know, um, you guys again get qualified uh, Tom. Nagala Meltami working ah, Tom moom dafa am principle so ku nekka ñu ku nekka dafa am dafa dafa dafa am lu mu dee lu mu bëgga ak lu mu dee bëgga nit ñi ñu jokko waaw man um, to be honest man ñoom Ibou Sylla man man musuma munuma seet musuma seetaan gars so dama dama daan dégg ak yooyu noonu comme ñi nga name place yi ne so uh, musuma seetaan seen vidéo tamit musuma xam comme ban football I think they were great people in Gambia in history of football um, so I wish ma doon ma doon seetaan uh, wala ma munoon a seetaan gars seen look at def um, suicide guys in but I think um, foog naa kenn rek la amul Zico moom naa ko seetaan moo play ak Chelsea waaw Aziz Kool tamit um, seetaan naa ak tubaabu moom seetaan naa ko so am na ñu nga xam ne jot naa seetaan guys seen guys game si nga gis ne coming national team also is another kind of thing is totally different ak sa club side so benn games la day nekk ñaari games su boree so fele yaa ngi am 38 games to go bi su baaxutee yaa ngi xalaat ah, next week dina baax so which is not which is different with the um, national team because soo ñëwee one game to go is finished wala two games to go is finished da nga another three months four months pour nga mun a amaat national team um, so man I try to um, take everything um, serious comme because dama de xam ne comme suma liggéey la ak loolu moo tax ñu oma so so mm, mm. so so loolu moo leen nekk di difference through um, other people because soo waree um, opportunity bi pour ñu wala place a nation is another kind of thing because soo waree suñu waree bàyyi ñëpp ñu oola du coach bi rek moo la bi ñoo am yaakaar si yow so I think yaakaar boobu noonu tamit danga ko bring back to the people who believe in you ñi nga xamante ne nii foog ne ne yow mun ngaa def différence pour nga mun leen amee ñu xàppe. well lan moo nekkoon di most national team uh, since boo dooree play football lan si gën a enjoy ak bés bu nga a kontaan ak what was the uh, at the national team. waaw man um, suma the saddest thing moo nekk um, bu fekkutee gars yi ñu ngi also moo nekkoon di best day of my life bi nga xamante ne ni enjoy naa ko waaw bu mu qualifié because I wish comme nga nga play game yi ba last game nga gaañu because moo fekkoon am beroon any season bi so bu ñëw qualifié fii so um, games yëpp maa ngi ko doon play ba mu des boobu noonu waaw moom moo gën a soog waaye at the end am bëri am nañu bëri ñu wane la ma dee jooy moom su ma ñàkkee moo la ma dee jooy <laughs> waaw <laughs> ah, it was it was it was shocking like waaw am nga kom ah, ñun amoon dream boo xamante ne nii like dañ doon dem pour ah, follow suñu dream so with all that things mun doon dem well for the nation so everyone was happy football bi da a gis ne comme den de mun a follow ah, social media bi da nga gis ne dëkk bi yëpp ñu ngi nekk benn képp ki nga xamante ne Gambien la rek mu ngi jéem pour support the same very very crucial because waaw you laa nekk di wax things was so nice um, yaa ngi doon uh, yu bëri si social media. waaw so affaire yi loolu mooy football because um, daf lay bring um, people together make people happy di nga xamante ne nii. ki nga xamante ne nii kontaan kontaan waaye su dëkk baa ngay win he is happy so because dafa feel ne moom Gambien la moom dëkk ah, doomi dëkk bi la so loolu moo yooyu ñoo nekk memories because dem si AFCON loolu is just ah, because dem si AFCON bi di dunda si gannaaw loolu moo nekk ay memories because ñun dañu den dem foofu noonu pour represent ñu nekk si gannaaw so as far as ñooyu ñu ngi happy so ñun tam ñu ngi happy so. Uh, um, trop Tonis sorry Mali seen ñun Tonis i naka la mel nag yéen you know it was miracle si yéen ndax you know eh, because tey bu ñu doon dem Afcon bi ñëpp ñu ngi wane ok Gambie is going waaye dañoo dem si first round bi waaye ñu gis da ngeen dem ba quarter finals against Cameroon naka la meloon nag yéen with the players après doon dóor this big nation because soo ko bàyyee xel da ngeen dóor Guinée Conakry eh, sixteen bi you know eh, dóor Mauritanie draw am waaw waaw football ranking. yaa ñoo ñoo nekkoon suñ kaw tamit so comme man lu ma dee wax rek ah, ñun dañ amoon ah, target bi moo nekkoon pour àgg si AFCON so bu demee ba àgg si AFCON moo nekk ne ah, lu doon xalaat moo nekk àgg nañ AFCON lan mooy the next step so. man personally man noonu laa dee um, jëlee things um, in a sense ne suñ ñëwee si bool bi nga xamante ne ni mooy in time of football so man dama dee jël things according su lu nekk di demee so tey su baaxutee ëllëg dafa baax ëllëg su baaxutee gannaaw ëllëg dafa baax man noonu laa ko la jël waaye tey su baaxee tamit yooyu yaa ko lay indi sa bopp pour mu baax yaa ngi understand te lii football la so ñu mun doon dem dafa nekkoon loo xamante ne nii comme man bu ma jógee Spade César di dem dama dama gaañu woon parce que dama amoon maa ngi e toogoon three months play ma so ma ma door ma resume one week coach bi mu oo ma mu ne ma nga ko mën a meeg ma ne ko na waaw pour AFCON ma ne ko ah man si gaañu laa jógee man foog naa soo jëlee ñi nga xamante ne nii ñoo nekk di compete is better for them because ma nekk ma di compete toog naa three months play ma football ah fu ñëpp bëgg la nga ne coupe bi dama gaañu man dama I was trying to be honest to myself because dama foogoon duma ko mën a make so te man ñëpp ñu ngi try pour dem foofu noonu waaye man bokk naa si ñu leen yóbbu foofu noonu waaye yestil suñu demee man maa ngi foofu ba léegi so waaye man for the best of the nation man loolu laa doon xalaat because ma war a dem foofu ma minus keneen ki nga xamante ne waroon naa mun a jël place boobu noonu man I wasn't I wasn't for that so foog moo woon ne loolu it was okay for me so bu ma koolee ma ne ma fekk maa ngi gaañu mu ne ma boole si liste ma ko ah man de man dama gaañu maa ngi toog léegi laa door daw yaa understand mu ne ma as far as door nga daw la loolu c'est good sign so ma ne ko ne ok waaw ñu seet balaa week bi jeex because am um, two weeks to go so the following week si laa dooroon di play ak yooyu noonu waaye things mu doon dem gradually ok si man tamit suma booram ma so ñu jógee foofu noonu ñu dem um, Qatar bu ma boolee si liste bi ñu dem Qatar so I was so surprised ah things uh, nu doon demee because moom sax ma xool mu ne ma yow yaa toog three months play la football so how comes nga war a nekk di ok nii I don't know because um, dama toog three months play ma waaye also man doon man train pour come back stronger si li nga xamante ne gaañu boobu la amee woon so so I things dafa demoon normal so I was just trying to be simple li nga xamante ne ni bëgguma woon a teg suma booba stress. All mu nekkoon very good successful um, Africa Cup of Nations in uh, Cameroon comme no ko waxee rek you know um, finally balaa ñoo wrap up uh, pour laaj la last question rek uh, ñu laal AFCON bu war rek den ñu go out rek ñu laaj leen benn two three questions ñu def uh, naka la meloon di preparation against Cameroon because um, ñun ñu ngi fa woon gis nañ perso bu Cameroon si nekk woon si boppam you know, um, because you know, you do it in you know, play very good football. Unfortunately, you miss the German one. Um, Nakalamelon again playing the host nation Cameroon. Up with all those pressure on the Cameroon, apparently, you started Japan, Japan, Cameroon was pulled back with Cameroonians. waaw xam nga ngeen ñëwoon ak ak benn mentalité moo nekk um, pour joxe euh, lu mu mun. Um, ñu foogoon ne loolu mooy de best pour ñu mun a nekk benn pour mu a jot dëkk bi lu soo xoolee game yi Mauritanie dañ joxoon nga too much too much respect and then ñu ne neen ñu ñu neen bu ñu waxee ñu ñu fonne comme mun nañoo make difference si biir fil bi so si lañ jëlaat beneen step bi nga xamante ne ni moom la ñoo mun a def difference pour ñu mun a génne lii di Mauritanie si stage boobu noonu so da nga ne things was going step by step from Mauritanie nga dem to Tunis nga war a door Tunis 1-0 amat dem nga draw ak Mali nga dem nga dem nga dem nga door Guinée so ñi yëpp team yu mag leen dëkk yu mag leen xam nga ñu ngi amee players yu mag ñu ngi amee everything mooy ñun doon dem as underdogs so waaye suñu demee bi dugal si fii bi loolu la ko demee so ñun dañu foog ne like underdogs bi loolu si biti la am so as far as dugal nga ba si fii rek ñun den de den lu mu war a def loolu lañ di def dañoo dañoo ñëw sa koo su mu war a ñëw sa koo dañoo ñëw sa koo waaye at the end nga gis ne um, coach bi dafa am on tactique um, dafa foog ne moom moo ñëwee moo ok xam nga so te moom moo amee final series so am na yoo xamante ne ni tamit ñu kii da nga koo jox respect si um, li nga xamante ne ni because ñun yëpp loolu la la jox yaa understand so ñu foog ne comme ñun suñu journey si si Cameroon bi la emoon mm-hmm. it was so sad nag um, it was so sad comme nun waroon a jéene at the end nga keep faith because um, dem expect woon ne expect la woon ne di nga àgg si stay quarter te ñun um, personally I was so proud I was so sad uh, the joy the um, that everything after bu ma demee àgg kel I feel ne it doesn't make sense um, pour joy ak yooyu noonu because right euh, almost almost Ibrahima euh, ñi war a delluwaat si AFCON euh, benn game moo nekk si diggante bi you know te dinañ xam fii di Mali ak Congo whatever come you still have the upper hand pour war a mun a qualify win you are there su fekkee ne Mali dóor na Congo das mean ne point di ngeen qualify naka ngeen préparé that game jotagul nag waaye lan mooy préparation bi xam naa ne after game bi toog ngeen ngeen waxtaan ne di mentality of that game te Gambia si bëggoon ngeen qualify waaw um, AFCON nag AFCON bi dafa <laughs> bi dafa neexoon so da ngaa ne um, ku nekk moo de ku nekk moo bëgg pare pour delluwaati foofu noonu so um, te ñun man man moom bëgg naa dellu. te loolu dafay nekkal si suma dream pour delluwaati. so te foog na each and everyone tamit ki nga xamante ne si team bëgg naa delluwaate pour mun a expérience those things ak ñi nga xamante ne nii ñi ngi dream pour dem foofu noonu xëy na ñooy tam seen chance mu nekk foofu waaye képp ak ki nga xamante ne nii dem neen wërsëga mu nekk foofu rek ñu xam ne kooku la wër yàlla wërsëga pour mu nekk foofu so ñun lu ñaan rek moo nekk comme things mu demee suñu yoon ñaan yàlla rek things mu war a demee suñu yoon. finally um, Gambia play last Uh, si Covid bi uh, la last time uh, France yi gis leen um, réeróolu mbir nag yéen a ngi topp social media stade bi ñu ko relevé um, ndax su ma la laajee question bi yàkkamti ngeen pour ñëw play Banjul ak lan mooy sa message pour autorités yi nga xam ne ñoo responsible independence stadium bi. ndax tey amul fan boo laaj dafay ne you know dañ nama national team bi. te bëgguñoo gisaat ngeen qualifié naat non booy gisatuñ leen waat euh, am na yaakaar na ne septembre la ñu play euh, ñu bëri am nañ yaakaar stade bi dina pare on time euh, lan sa message pour fans yi lan mooy sa message pour government when it come to stadium bi right ah, man loolu mooy <laughs> comme soo. play booy fans yi la ñu mën na nañu trop quoi. non waaw ñun tamit dañ leen nama moom wax dëgg yàlla moom soo soo bàyyi xel um, play si biti um, ñun sax suñu bopp neexuñu I understand nit ki dooree am dooree am choice soo lu ñëw te xam naa ne tamit ñu nekk si si government bi wala ñu nekk di si wàllum stadium bi ñooy tamit ñun suñ place si biti foog mu ne daf leen ne so I understand what uh, with all that thing xam nga ñun dañ koo jàppee fii la ñu gars yi yónni ñun dem because ñu moomu suñu boppa so suñu gars waaye fii ngay dem ñu fii la ñoo dem so I think ne fans yi tamit Uh, ñoom dañu bëgg a gis uh, mooy na nga gis ne ñoo leen gën a bëgg a ñoo a bëgg because dara neexut comme nga dem nga place sa dëkk xam nga oh. ah non waaye loolu loolu loolu sax loolu du thème bi waaye comme because ñun dañ ko def pour dëkk bi wala dañ ko def pour nga xamante ne pour everyone mu happy so da nga ne defuñ ko pour gars yi feeñu yaa understand dañ ko def comme pour li nga xamante mooy suñu liggéey so da nga gis ne like ñoom tamit ga gaañu gaañu ngi right gaañu seen dëkk because ah, lu jëna ne nga play sa dëkk xam ak sa sa sa famille because ah, so imagine nga wala dem play Mali nga jógee Mali nga dem instead of nga ñëw play sa dëkk nga dem ba Morocco xam nga ah, loolu it doesn't tell well waaye si other side tamit doo leen mën a blame because da nga gis ne um, stadium bi parewut comme dafa mën a play FIFA mun la baan foofu noonu la baa foofu so things things ñun dañ ko war a jël dañ ko war a balance waaye lu mu war a ñaan moo nekk um, mu pare. on time xam nga um, comme time bu ko bëgg mu pare then then ñu hope for the best ñu hope ne comme dinañ ko a celebrate waati comme another um, ak home. finally Ibrahima <laughs> special uh, program because I uh, tsunami bu xamoon in in in Turkey you know ngeen nekk fa doomi Gambian Ibrahima Diallo uh, you know um, it was sad moment for Gambians because player ngeen disaster bu xewoon in Turkey you know everybody was worried about you people. Um, loolu bu wàll rek su dee mun nga see ñambaxaar rek ndax nga dundee laaj boobu noonu uh, pare nag gis nañ ne bu bees nga you know. <laughs> tamit you know. Uh, ñu la see ñu la see congrats bu baax a baax nit ñi bëri xamuñ ña euh, fu mu ne nii ah uh-huh. euh, madame Kaar macha allah leen rek ne euh, mu nekk sëy bu ne am si uh-huh. doom yu barke doom yi mun football you know ku mel ni Ibrahima ko ni ñu waa you know do uh-huh. Gambie benn rek sa famille tamit su dee mën nañu mère bi paa bi you know ak sa rakk friends yi you know loolu tamit bëggoon nañu rek nga tëjal ñu ko fa su boobaa rek ñu ràpp ak yow waaw moom um, tooki ngi Um, because nga gis ne lu si dëkk bi moom it was so sad bi nga xamante ne ni like game si nekkutoon di nekkul woon di daw so comme képp ki nga xamante ne ni mu ngi woon si dëkk bi like mu ngi mu ngi ragaloon about li nga xamante ni moo happen because wane ma jóg suba rek like suma ma caba suma boy ma ko ay fifteen minutes because waaye moom mu ngi Italie so ma jóg ma wa Steven lexew yaa ngi ok mu ne ma

so xam nga waaye de dese noonu comme ngelaw baa ngi bëri ak yooyu noonu because maa ngi wax ne ah baa ngi bëri ak taw bi nii mu ngi dóor suma parenteel so waaye après ma jógee si suba mu expliqué ma la ma ne ko ah ma loolu de man dama doon nelaw de xam nga waaye things da nga gis ne soo demee ba si biir nga nga seetlu happen ak disaster bu fa am nga da nga ko dee feel soo toogee nga xalaat ne yow di su la waroon dal wala mu war dal sa famille comme si pain boobu ak time boobu mu ngi seedoon mu ngi sunu ak yooyu noonu so mu ngi métti woon si gaa seen boor tamit so ñun lu a def mooy comme ñu donate ñu hope for the best comme ne gaa neen gaa neen ok si loolu noonu. madame. waaw <laughs> ah, because moom uh, ñu ngi woon ñu ngi woon together because xam nga man ma dee pour dugal suma private life si social media so I was I it uh, low key bi nga xamante ne ni uh, loolu la dogal so non ñun doon ñun doon ñu ngi woon <laughs> ñu ngi woon together for two years ah two and a two and a so man ma mooy mooy di right person pour ma pour ma. non xëy na xëy na yow la xëy la gis rek moo tax mu laa xëy na yow la gis rek moo tax laa teral waaye waaye sant yàlla bu baax.

waaw ah, li nga xamante ne nii comme comme loolu la gars yi bëggoon daal pour ma pour ma nekk so eh, so always comme man tamit dama leen daan ñaan dama leen dee ñaanal rek ñu nekk yàlla may leen jaama wér gu yaram ak yooyu noonu ma mun fekkee yu bëre bëri suñ kanam ah, ah, jaar jaar you know jàngee si yow xool um, obstacles yi you know uh, difficulties yi you know uh, and njëriñ moom nii xale yi nañ ko jàngee si yow uh, pour rek mën a nekk professional footballer. thank you very much for granting Star TV ma special interview ñu ngi gërëm bu baax a baax sa madame tamit gërëm ñëpp ñu nga ñu si kër bi fii thanks ki si Basir mu nga xam ne moo ñu jàppal nii di caméra bi um, jërëjëf Ibrahima thank you very much for hosting Star TV fii sa dëkkuwaay. non ñoo ko bokk amoo benn problème. yàlla fay leen yéen tamit am seen si seen liggéey um, fay képp ki nga xamante ne tamit am um, ngeen seetaan um, every time by Solan waaye comme message moo bëgg a joxe moo nekk comme lii di comme xale yi nga xamante ne ni they they they wanna become something tomorrow because life bi is not easy mm-hmm. te ñun yëpp ne Gambia nu mu méttee uh, waaye sant yàlla things mu ngi change léegi xam nga so xale bi nga xamante ne ni da um, nga bëgg a nekk football wala da nga bëgg a ci sa dërëm si li nga xamante ne comme football um, moo nekk ne like um, bul bul moo ne lu nekk ne moo nekk comme dama sona wala comme dama ko meek because si lu nekk loo xamante ne ni da si def sa sa mind wala da nga si def li nga xamante ne mooy hard work dedication ak yooyu noonu yàlla yombale ko ga seen boor xam nga bi ñoom tamit seen famille mun a ëllëg e ak seen njëriñ ëllëg. amiin thank you very much uh, thank very much loolu nekkoon waxtaan bu nga xam ne ñu ko ak kii di Ibrahima Colley di uh, Gambian number 19 comme ni ñu ko dee congrats ko bu baax a baax gërëm ko bu baax a baax mu nekk si ndaw yi njëkk a qualifié loo national team bi euh, mu am fu nga xam ne nag ne ko ko fonkee respecté ko because of a player bu nga xam ne everybody is yearning to put them si Africa community bi coach ne ko nga xam ne lu jafee gis nag si ama euh, players yi kon ni euh, royukaay la ñëpp war nañ ko bàyyi bu baax a baax te nekk na player bu nga xam ne gis nañ lu nga xam ne mu ngi jox li di national team bi anytime suñ ko ooyee kon nag lii moo nekkoon one on one exclusive interview bu nga xam ne am nañ ko ak kii di Ibrahima euh, Coly kon nag ñu koy gën a ñaanal rek you know euh, mu gën a yokk euh, gën a dem si club bi gën a am doole qualified lu war Gambia for the second time for possibility Africos thank you very much gërëm kii di Basirou jërëjëf